Mais les députés, en réponse, en réaction euh, à la défiance du, du, du Premier ministre, euh, dañoo bañ a voté dañoo bañ a euh, def li nga xam ne moom mooy la la la loi euh, de, la la la la débat d'orientation budgétaire le, le débat débat le débat d'orientation budgétaire alors que ci seeni prérogative lu ñu war a lu ñu war a def la parce que ñoom aussi violé wuñu loi bi moo tax ma ne parce que le débat d'orientation budgétaire Euh, ci rituel bi la bokk. très bien mais xam nga loolu laay wax ne escalade am nga obligation constitutionnelle respecté wu ko ñu tam am nañu obligation constitutionnelle duñ ko respecté ma ne loolu baaxul moo tax ma ne ñuy dialogue gis nga tey may mun a même suñu waroon dissoudre assemblée nationale bi mais dissolution bi mënoo ko def noonu soo dissoudre loi constitutionnelle bi dafa ne mën nga dissoudre article 87 waaye soo dissoudre war nañu organiser élection yi dans mais y a une loi sur le parrainage. waaw am na loi sur le parrainage am na loi buy wax ne le montant de la caution doit être fixé 150 jours avant l'élection entre temps y a la session budgétaire ndax dañuy tëb session budgétaire wala dañuy bàyyi ba session budgétaire bi jeex mais loolu yëpp noo koy réglé waxtaan dialogue républicain. mais bu ñu dissoudre woon war a organiser les élections dans les 90 jours. Euh, parrainage bi war a mbiru parrainage bi processus bi war a jël cinq mois loi électorale bi rek wu ko non parce que harmoniser wuñu loi électorale bi ak constitution bi harmoniser wuñu ko surtout su fekkente ne dissolution la quand on est dans une élection normale y pas problème mais fii su fekkente ne dañu dissoudre laa wax mais dissolution bi c'est une situation exceptionnelle situation exceptionnelle noo koy gérer suñu constitution prévoir ko suñu loi électorale euh, prévoir ko loi organique bi régir assemblée nationale organisé wul loolu yëpp loi organique bi régir assemblée nationale moom mënu ci wax moom parce que moom encore une fois fonctionnement interne assemblée rek la war a su ko génnee rek wax na leneen wàcc na yoon mais je veux dire la constitution prévoit que day mën nañu dissoudre 60 90 jours mais après harmoniser wuñu ko ak le code électoral en cas bon, on peut dire ouais euh, les dispositions constitutionnelles sont supérieures hiérarchie des normes ça s'impose à la loi électorale mais loolu yëpp dañu koy waxtaan parrainage bi noonu la koy defee li ñuy def parrainage bi lu ñuy def pour respecter cent cinquante yi de fixation de de la caution lu ñuy def pour respecter les délais pour la convocation du collège électoral mais loolu yëpp dialogue républicain la démocratie ak république waxtaan la toog dialogue loolu moo tax may saluer bu baax aussi président assemblée nationale parce que maa ngi lire ci presse bi mais jël na ay initiative pour rapprocher les positions pour dialogue am parce que ma yoon fi nekk nii Sénégal fi ñu toll nii génn nañ ci élection am na ñu gagné ba pare ñu leen di féliciter ñaanal leen ñu am succès mais le reste jeex na léegi jàmm la ñu soxla ci réew mi waxtaan la ñu soxla dialogue lañu soxla actuellement diisoo manko su ñu demaatee élection ñu xeexaat su fekkee dañuy dem élection législative anticipée su ñu demoon élection législative anticipée prochaine locale wala prochaine présidentielle ñu xeex mais fi ñu toll nii il faut que les acteurs s'assoient toog waxtaan soit soit président la république ci boppam nag par son pouvoir d'arbitrage par son pouvoir de régulateur du fonctionnement des institutions moom na ko initier ou les partis ñu waxtaan juboo en gentleman démocratie affaire gentleman la démocratie da nga ëpp nit doole rek da nga koy dóor wala démocratie du euh, am naa benn prérogative dama koy exercer mun naa la renverser dama lay renverser mun naa la def motion de censure daan dama lay daaneel non mën nga mën a daaneel premier ministre motion de censure mais ngeen waxtaan su ñëwee assemblée mais doo leen ko daaneel su leen waxtaanee nga ni ko non da ñëw def sa déclaration de la nga tontu ñu mu jeex ñun du ñu déposer motion de ngir jàpp ko. mais xam nga fii euh, bu majorité bi collaboré premier ministre ñëw assemblée def euh, déclaration de politique générale am euh, defuñu ko motion de censure tout le monde s'attend à ce que ce qu'on dissolve li nga xam ne moom mooy l'assemblée nationale. parce que c'est un pouvoir qui s'installe les élections législatives c'est en 2027 ñoom du ñu mën a nangu cohabi cette cohabitation qui ne dit pas son. qui ne dit pas son, son, son nom. Tout le monde s'attend qu'au mois de janvier, qu'il y ait des élections euh, législatives anticipées. maa ngi dégg Doudou Wade ce matin di naan Assemblée nationale bu Sénégal mosuñu ko mosuñu ko mosuñu ko dissoudre. si on a dissous quand Wade est arrivé on a dissous. en 2001. oui en 2001. c'était une dissolution. sauf erreur de ma part c'était bien une dissolution sauf erreur de ma part et sous réserve de vérification mais je pense bien que c'était une dissolution. alors.

président balaa mu mënoon dissoudre il faut gouvernement bi adopté motion de censure socialiste yi bi gars yi ñëwee dañ leen ne ñun adopté wuñu motion de censure dañ leen di accompagner il a fallu ñu modifier ñu réviser constitution génne clause boobu pour que président Wade mën a. mën a dissoudre soog a mën dissoudre maintenant. mais est-ce qu'on peut actuellement faire l'économie d'une dissolution de non actuellement il y a deux situations possibles xam nga politiquement tout Ablaye Wade bi mu ñëwee 2001 dafa dissoudre am majorité bu ko favorable. Euh, Macky Sall d'ailleurs ci bi loolu lañu doon wax. voilà Macky Sall n'a pas dissous bi mu ñëwee parce que Macky Sall bi mu ñëwee nekk président de la République Ablaye Wade déjà fixé la date des législatives. au mois de juillet au 15 juillet. mais comme dépôt dépôt candidature yi mi ngi nekkoon mi ngi nekkoon le lendemain de la proclamation des résultats on a négocié pour ñu déplacer élection bi yóbbu ko du 15 juillet au 30 au 31 juillet 15 ci la ñu mun a déposer affaire ak yooyu quoi candidature yi notamment donc moom disutul donc benn dissolution la mus mos am quasiment benn muy dissolution 2001 bi léegi nag premier scénario possible mooy nga ñëw ne dañuy dissoudre comme en 2001 on veut notre majorité à nous dañuy dissoudre assemblée nationale bi surtout que à partir du mois de septembre bon dégg naa ñuy wax euh, juillet et cetera <laughs> mais en tout cas au moins août septembre ah selon qu'on la date anniversaire de la proclamation des résultats ou la date anniversaire de l'installation des députés mais pour moi c'est la date de l'installation C'est la date de l'installation moom la ñu war a retenir. Pour moi c'est ça qui est parce que normalement le mandat expire toujours à la date d'installation voilà muy septembre. Maintenant suñ ko dissous soit donc je disais on dissout on on des élections législatives anticipées soit deuxième scénario mais l'exécutif mais septembre octobre novembre marathon budgétaire dafa war a commencer. Très est-ce que mën nañ ci organiser des en élections donc il y a qu'au mois de janvier normalement en tout cas la dissolution idéalement et si on est dans les normes dans l'orthodoxie la dissolution ne devrait pas intervenir normalement pas avant décembre pas avant deuxième quinzaine décembre su ñu buggee bàyyi session budgétaire Sénégal mën a am budget dañu war a bàyyi ba session budgétaire di jeex ñu dissous 60 90 jours après ñu organiser élection bi ça doit janvier bon maintenant voilà euh, soit soit mais on peut faire l'option de dire on dissout on dissout pour telle raison telle raison on dialogue. ñu waxtaan ñu waxtaan on arrête un modus vivendi un gentleman agreement les lois vous ne les bloquez pas vous accompagnez le gouvernement vous évaluez les politiques publiques comme la constitution le prévoit duñu dissoudre assemblée bi en tout cas duñ ko dissoudre léegi on verra plus tard bu ñu bëggee taxawal haute cour de justice nag. oui mais mais haute de justice mun nañu ko taxawal nii mun nañ ko taxawal. comment. mais c' est l' assemblée qui élit la haute cour de justice. waaw mais l' assemblée élit la haute cour de justice ils s' entendent sur les postes. ñi proposé trois ñi proposé trois président cour suprême présidé ko mu nekk une haute cour de justice paritaire. non j'ai dit waxuma ñu def loolu de mais je suis en de dire que démocratie. c'est un jeu ouvert c'est un jeu où les compromis peuvent aboutir à tout et dans tous les cas le consensus les accords les compromis sont hautement plus salutaires à démocratie que la confrontation